Babacar Gueye cheminot Dakar Bamako ferroviaire appartenant au syndicat Sutrail forum bi comme ni ko ñëpp gisee rek forum boobu ñun dañu ci waroon a jox parole parce que dimanche passé ñëw nañ ci gis intersyndical bi ñu waroon ñoo jox parole ñu waroon a am sax des orateurs pour donner notre point de vue par rapport au forum parce que comme ni ko ñëpp a xamee rek ñun dañoo am ay inquiétudes yoo xam ni ci lañ bëggoon a laaj euh, nga xam ni bu ñuy wax ak président ci loolu la ñuy wax ak moom parce que tey comme nun ko xamee bu yàgg ba léegi Suni salaire jototuñ ko ci waxtu dañuy tarder toujours ba ay le 15 le 20 le 25 etc. malien yi ñoo ngi 6 mois sans salaire retraité yi bobu légui 2 ans fayu ñu leen sen départ à la retraite recouvrement qui euh, prélèvement hypercié ak yoy versé tuñ ko personnel bi nekkoon li ko ay thiès jëm jurbel jël nañ leen indi leen côté bi

koy rafetlu bëgg tamit di ñaan yàlla tamit mu tegu taxaw bañ a doon tamit loo xam day tardé wala loolu waaye ñëpp xam nañ ni projet defarub semaine de fer fii ba ko moom day laaj temps raay fii ba foofu day laaj temps léegi nag ñun ci loolu durée boobu xamuñu kañ lay commencé ba ba muy pare ay quatre ans cinq ans te ñun ñëpp nax d'accord nañ ni chemin de fer boobu sax mooy bi baax parce que ku bëgg a def chemin de fer bu efficace compétitif il faut nga renouveler ko waaye dañ ni suñu syndicaliste yi kat ñun liñ leen doon laaj loo li nu deeni moom lañ war a taxaw tey di ci laaj mooy ñu laaj président par rapport à son discours la lan la nar ci ñun ñi fi nekkoon tey DBF par rapport ak réhabilitation boobu bu ci jubloo temps d'inactivité boobu ñuy toog du ñu liggéey parce que commencé nañ ko doo liggéey ñu lay fay xam nga dalul xel ah donc léegi ci temps boobu ñuy defaraat semaine de fer bu bees bi lan la nar ci liggéeykatu Dakar Bamako ferroviaire yi parce que bientôt ñun ñëpp constaté nañ ni léegi liggéey bi ñuy liggéey ci yeneen saxaar dawal ay GCO ICS euh, ak euh, kii PTB donc yooyu bu tey demee ba nga xam ne PTB taxaw na ñun ñëpp dootuñu gisati euh, nu na allons vers un chômage technique dañuy dem ci chômage technique te dañoo inquiété léegi ñu ni woon sunu syndicat bàyyi leen démarche solitaire yi bëgg a def forum di tànn ñu ngeen koy yëgal ak ñu ngeen ko dul yëgal décision yi du ngeen ci concerté nit ñi ñun ñu bëgg dugg ci salle dimanche ñu d'accord ni dañuy jox parole tey ñu ñëw ñu indil ñu ay bërekat ak ay lutteur ak policier ñu ni duñu dugg ci salle bi bi ma ñëwee ma ni policier bi bon nan dem mambay mooy waxoon dañuy jox parole léegi kon yóbbu ma ba ci mambay mu wax ma en face que ni moom moo waxaat ni duñ dugg bi ma ñëwee policier bi accompagné ma service d'ordre bi les autres camarades ma m'attendaient dehors ñu dugg ba ci biir après mambay daan ne bàyyi leen ko mu dugg léegi da euh, mu ni ñi ñi ñi ci des du ñu dugg léegi bi ñu duggee toog ma woo ko ni ko léegi parole bi nga ma inscrire woon est-ce que ça tient toujours mu ne ma non non finalement hier on a Retirer votre nom sur la liste des orateurs. Est-ce que ça, c'est la démocratie Alors que moi, je suis un travailleur syndiqué qui a combattu à ses côtés pendant qu'on voulait faire partir le privé. combattu à ses côtés Bataille établi, état bi à affaire nous dem di cheminer man point de vue comme d'autres camarades nous avons beaucoup de ñu de vue beaucoup ci syndicat bi couper euh, notre notre cotisation et tout bon tey ñu war a jël parole ñu ni ñu du ngeen jël parole kon te joxe nañ seen kàddu est ce que njiit loo xam ni dimanche jox na la kàddu ni da jox parole da ngeen di jox parole Tay nga ñëw mu indil la ay lutteur ak service d'ordre kooku est ce que lo la boo xam ni jàpp nga ni tey war ngaa amati ci moom confiance pour muy plaider de sa sort xanaa léegi doonatul lu nu moom lu nu moom ñu ni ñu ci indil service d'ordre ñu du ngeen ci accéder donc loolu xel war na cee tey ñu xam ne ñun mënatuñu am confiance ci njiit bu mel noonu. ñun daal nguur gi lépp luñ koy wax mooy projet boobu daal vraiment président wax ah mu doon projet boo xam ni euh, nun ko mën a gaawalee comme nee na financement yi presque aboutir na ak yooyu ñu commencé ko ñu commencé waaye temps bi muy def pour réa defar projet bi ba mu yegg chemin de fer bu bees boobu balaa dara di ci commencé na wax ak ñun balaa ñoo yegg fenn. balaa ñoo yegg fenn euh, na wax ak ñun ci lan la nar ci travailleurs yi nekkoon DBF te nekk maintenant en période d'inactivité boo xam ni moo ngi commencé di bëgg a yàgg na wax si sunu soor ba pare soog a euh, dem ci leneen lu nuy dem ñun loolu la ñuy xaar. waaw Cheikh Baye Seck je suis le secretaire général chargé de communication du syndicat SUTRAI qui est le syndicat majoritaire. bon situation bi tey. bon ni ñu koy apprécier rek mooy dafa am ñaari façon cheminot. Les am cheminot yoo xam dañu nek ci nuage yi di rêver boobu ba légui am cheminot yo xam dañuy dund la réalité tey le forum dafa am ñet secrétaires généraux yu tok décider ko en solitaire. ce matin le premier adjoint du secrétaire général Mamay Tunkara mu ngi fu won parmi nous faut rentrer à Dakar. tay war nga mëna organiser forum pour le bien des cheminots. d'exclure les cheminots en en activité. lool rek déjà. fa am lu mi wane. benen bi ci am le président parle de réhabilitation et d'un nouveau chemin d'affaires. il parle de relance di wax ay machine quand on entend le DG du port parler de chemin de fer pour désengorger le port de Dakar waxul chemin de fer ñaar wala ñetti machine il parle sur la même longueur d'onde que le président donc il faut que am ñun une nuance une dégo ak Mais mais ñàkk a déggoo bi lu ko indi nanguwuñ ba ak ñun dégluñu dañoo japp seen date japp seen lieu ñew ne dañ ñu sensibiliser par rapport à ce forum là alors que nous sommes des membres à part entière de ce syndicat là et du cadre même unitaire ñoo bokkando combattre ñoo fi demando grève ñoo defandoo sitting ñoo defandoo marche donc loolu lañu ñu comprendre ah dimanche on s'est réunis comme nous ko Babacar waxee dem ñu joxe sen kàddu ne vous aurez deux orateurs à notre grande surprise tay ñu ñew vraiment avec fi ay nervis fekk fi service d'ordre heureusement les services d'ordre ont été très compréhensifs bi leen expliqué ils ont accompagné Babacar ba ci mom ma bay biñu yeggé yeggee non Babacar duggal ñu ko les autres mu balay policier bi di yeggali daw na dugg c'est pas responsable et c'est pas honnête tay li lay won ne ce forum là c'est pas les cheminots ce matin, en gare de Thiès. Des retraités qui, qui parmi nous consacrent toute leur carrière au chemin de fer. Ils ont fait 40 ans de service. Mais depuis deux ans, di daw ci seen indemnité de retraite ba tay mu jaral leen ñi dem le jour même du forum xam nga du c'est pour dire que kenn associé wu leen ci forum ni de près ni de loin moo tax ils ont choisi même le jour du forum pour dem ñun ñu leen waroon a ñoom ñu dem jooyali tey seen bopp kii suñuy papa dem tëdd tey ci raay bi ñun suñu langage suñu discours lenn la président lim ne day réhabiliter raay bi on peut pas être contre réhabiliter raay bi dundalaat chemin de fer mais loolu la ñuy espérer depuis mais nag en plus nañu wax ci suñu avenir ñun qui som en activité pendant cette durée de réhabilitation de la voie ferrée ñun on ne demande que ça. nga bëggoon ci yokk rek tuuti nii. à partir d'aujourd'hui maintenant nous avons un secrétaire général qui nous de l'intersyndicale qui nous a déclaré la guerre parce que nous, nous confiance que nous koo nous représenter di indi ay euh, di euh, tu n'es plus honnête sa kàddu sa taxawatul sincère to ak à partir d'aujourd'hui nous ñu on va prendre notre destin à main parce que nous n'avons plus confiance à Mambay Togala et son équipe donc lolu mom c'est clair et net